asalaamaaleykum mbokki auditeurs yu Gaya Info ak auditrices yi gannaaw bu ñu leen nuyoo ziar leen ndokkeel leen vidéo bii ñu leen war nag wanoon nañ leen ci semaine bi passé vidéo bi nga xam ne mbaam yi dañu nekk ca tool yi bàqim paal di yàq waa ay numaan ci guur ak jigéen sonn ci lool waaye amuñu woon saafara fourrière bi nga xam ni buñ fa yóbboo bàyyi ma ah bunte ba kay tëj dafa yàqu woon gannaaw ba ka maire bi mairie bi déggee monsieur le maire ak ñu mu àndal fexe nañu bay defaraat buntu fourrière bi waaye ay nu nekk ci guddi ak bëccëg di sàmm seeni tool waaye di sàmm toolu waa gaaya ndax ay nu waa ay nu ñoo fa dëkk mais tool yi fa nekk toolu waa gaaya yépp la loolu nag tax na tey ji ci altine ji e, waa ay nu bi mbaam yi dugg see te ñu xam ni bunt ba pare na ñoom kat seen mettit méttit yépp moo doon man dajale mbaam yooyu di yàq jële leen ca tool yi dugal leen ci biir fourrière bi tey jii nag mbaam yi dafa mel ne du ñu ràkkatu daal di ñoom ñëpp babbeeku ñëw ca toolu bàqi paal yi nekk ci pataas bi di yàq-yàq bu métti foofu la ay numaan nag ak borom tool yi daal di nag jël nag mbaam yi yonee ni mbaam yi fourrière bi baax na léegi kon fourrière bi mu ngi noonu ñi saytu fourrière bi ñu ngi noonu lépp li nga xam ni moo daan dox ci diggante fourrière ak bàyyi ma buñ fa yóbbu ah, am na nu mu daan doxee kenn du ko wax ni muy demee ndax ñoom xam nañ ko kon lool la leen gaa yi info indiloon wane ni kat Ainoumane eh, sonn nañu lool waaye mairie bi defar na bunt ba bay bunt bi macha allah fi ñuy wax ak yéen dugal nañ ci mbaam yi yaa ngi ci biir fourrière bi ba tëj leen bu ci nag duggee tam ñu jël noonu dem.